que c'est le désespoir. jigéen bu demee ba xam ne kii muy jox boppam ci kaw njaaloo amana sax koka, moo ki koy mooy malaakal mawti ci mom. te mënta bañ ndax bu bañee du lekk. du naan du ñibbi du dox. dëgg la loolu fii c'est ça le vrai message. dëgg la lan mooy war pousser à une un suicide collectif. Mm. Fini suicide collectif moo fi ne ñii dugg dem ci géej gi. Mm. c'est un suicide collectif. Mm.

mooy compagnie ñoom Amadou Ba yeeg ñoom Idrissa Seck yeeg ñoom Déthié Fall ak ñoom seen ak ña nga xam ne euh, actuellement euh, moo ñu demul woon genre Bougane te boo xoolee pour le moment presque Bougane ngay dégg euh, Thierno Alassane Sall Bougane demul woon élection dañ ko recalé ci parrainage yi Thierno Alassane Sall moom demoon na participer woon na ci élection yi Thierno Bocoum non partant la woon ñett ñi ñoo fi nekk di yëngal Euh, yëf yi di góorlu sax pour jéem a jàkkaarloog Sonko waaye euh, ña ca des. yow ci sa xalaat est-ce que opposition bi euh, dañu amul chef de file. bi nekkul gën fan la. toujours di kayit mu kayit. kayit xam nga lu France wax. kayit kayit mais mooy bande kayit kayit M. Pape ko pour ñu xamul. K comme Karim. Ah. boobu fii la danger bi nekk pour le régime. mais papa leeralal tojal ma yax bi. mooy li nga dégg rek. Ka comme Karim. waaw nga ne kon su ma déggee Karim. ID comme Idi. mu ah. def Kayid. waaw M comme Macky. trio boobu mooy l'avenir du pays ñii pare nañ. ñan pare nañ. Euh, le régime euh, di di di di toj làkk jàll pare nañ. ah loolu ci doom lay mujj ñu ko taal toujours ci doom lay mujj. waa mais papa lu doom bi tàng tàng dootul tàkk. mais papa dama lay fàttali ne euh, euh, régime toj taal euh, jàll. ñoom nga ñoom nga duppee Ousmane Sonko ak Diomaye ñoom ñu ngi fi doog a toog quatre mois lañ fi def nga bëggoon a jeex. waaw nañu wax nañu wax Sonko rek. Sonko ah ah nañu ñu bañ a dugal Diomaye. waaw nañu wax Sonko parce que Diomaye dégguñ ko woon avant. Mhm. dégguñ ko mu taal ah, dégguñ ko mu taalu dégguñ ko mu gàtt sa dégguñ ko mu mat sa wax dëgg yàlla. Mhm. bon même bu nekkee fekkee ne moom dafa gëm Sonko nekk taalibe Sonko. Hmm. libre à lui. Ah, am na ci droit. waaw waaw waaye nag président la république du jiital kenn. Hmm. ilimaan la du taxaw ca gannaaw. Hmm. Mm. ilimaan ca kanam rek. loolu ay ngala jola ci biir. waaw bon donc yëf yi. kon yéen da nga jàpp daal ne ñii presque régime morné la daal su ma déggee bu baax. qualification la. man duma ma def qualification man damay wax ne man réalité réew mi laay waxal. ndax ah. damay dund réew mi. dëgg la te nga xam réew mi fekkee lu bari. ndax man duma ma añ mukk. Hmm. te junne nit añandoo ñoo man ci biir réew mi. Hmm. bés bu ne. ma togg yàq ba junne ni lekk ma door a lekk añ vraiment reer noonu vraiment ndekki noonu te mën nga ko vérifier te mën naa may sa caméra mu dem loolu yëpp mu vérifier ko te loolu du léegi yàgg na depuis ati ati at dégg nga kon nag man xam naa li réew mi dund samay doom ñoo maase ci jeunesse boobu lañ bokk ci la jeunesse déçue maintenant on parle de la jeunesse mhm. maintenant yaa daal la jeunesse une majorité déçue. ñoo xam ne seen yaakaar dafa pass ci quatre mois yi. ndax yow toppal fi nga naan topp ci kaw rond point yi. tali yooyu ngay gis. nga xam ne jant bi ci seen ndong yi lay fee lay fenkee. ci seen ndong yi lay sooyee. ñu nekk ci loo xam ne moo gën a tàng micro onde. ci la ñu xiisoo ba jant so. te kenn du ci yóbbaale 3000 sa kër. te ku ci ne pour nga añ. même bu dee da añee café Touba. pour nga paas ak yeneen dana la jëlal minimum 3000 francs par jour te doo ko yóbbaale sa kër. dëgg la loolu moo jur agresseur moo jur yu bari yi nga gis dëkk bi. te ñoo ñooñu amoon espoir. voilà. dégg naa ñooñu nag lañ konkandéisé. Hmm, xaw leen ñooñu dañ leen a wax li konkandé waxoon damay xar géej gi ñu takk seeni bagage ne dañuy jaar ci géej gi pour dem. Hmm. te xanaa xamuñ ne même bu géer gi xaroon suuf sa bàyyi boo ca taxawee boo taxaw booba mën na au moins vingt mètres ci suuf boo duggee rek da ngay dugg yow am nga bàmmeel ba pare doo dem fenn mais kon papa si yaa de goudron bii ah. jëm ndar moo jëm Paris waaw mais mais papa tamit s'il y a des Koukandé s'il y a a eu aujourd'hui comme ni nga ko waxee bu nit ñi gëmuloon Koukandé duñ gën kon duñ gën Sonko kon photo Sénégalais yi tey que moom moo nekkoon hors d'œuvre bi moom lañ jël hors d'oeuvre bi hors d'oeuvre bi moo doon Konkandé <laughs> Sonko ñëw di plat principal <laughs> loolu rek la mi ngi ci restaurant yi <laughs> euh, euh, Konkandé moo doon hors d'oeuvre maanaam léegi moo doon euh, mosaale mosaale moo doon entrée bi hmm. plat de résistance bi Sonko la sénégalais kon ñoom ñoom war lañ ci am hmm? sénégalais kon ñoom ñoo war a déguster waaw mais li ñu di gisee xam nañ ko c'est-à-dire yi dañoo yaakaarul lu ne duun ñu indi booli bi. xam nga fii ci réew mi am na fi foo xam ne place yoo xam ne da ngay gis ñu rek téeméeri cin. téeméeri mbana fekk en réalité fukki mbana lañ togg. quatre-vingt-dix mbana yëpp ndox mu tàng la. léegi nag bañ séddalee bu fukki mbana yi kii gars yi quatre-vingt-dix mbana yi bu ñu ubbi rek fekk bu ndox muy baax looluy problème bi Sonko na ma régler boobu problème man ma jox ko prix Ahmed Khalifa Niass pour l'excellence et le xaw ma lan et euh, le plus grand euh, service rendu au peuple sénégalais maa ko koy defal mat na léegi papa sànq da nga da nga da nga tamit beneen euh, terminologie bu bees mooy da nga ne Kayid Kayid M. Kayid M. te boobu amul E. amul amul E. rek la. idée mooy idée. Kayid. Kayid un français en français. Kayid un français un moom mooy moom mooy bandi ko ko ñeeg yooyu nangam ak nangam te boobu ñu ngi koy bindee C A I tréma yow nag nga ñëw jël loolu xam nga nag tubaab nga. léegi man mi nga xam ne dégguma dara. Karim Laab kon su ma déggee. kayit M yëf yi ci M jëlee daanoo ci Macky. ci Macky Sall ah. ci lay mujjee mooy terminaison ba te euh, papa. dégg dama lii lii lii lii kii wax tey lii lii Sonko wax tey. waaw ci conférence de presse bi mën a def. ayca nañ tas assemblée bi su fekkee ne Macky nekk na tête de liste. Hmm. bu amul majorité 60 pour cent. de l'Assemblée nga xam ne man xamatuma dara ci politique. waaw mais foog nga ne Macky Sall sax ñaa nekk tête de euh, ah, benn bokk ah kon l'APR sert à quoi. APR du moo ko moom. moo ko moom de. ah kon nag mën nañoo tere mu jiite ko. déedéet il n'a pas ce droit. am na droit ay kenn nañ def loolu. kon pour yow Macky Sall bàyyeegul ba tey. ah Macky Sall yow bàyyeegul. Ah, Ablaye Wade bàyyul Macky Sall mii doomam war a bàyyi. ah amul sens je retire ma question objection rejetée.